moo ko tabb ne ko demal nga dem retirer fiche de parrainage li tax may wax loolu mooy bu kenn dugal seen xel ne dafa am ñu complot Ousmane Sonko ci parti bi pour ñoom nekk ay candidat wala ñu ko imposer sax plan B Ousmane Sonko ci boppam moo jël décision ne Bassirou Diomaye Faye demal nga retirer fiche de parrainage comme ni mu ko waxee El Malick comme ni mu ko waxee Abbas Fall comme ni mu ko waxee Guy Marius comme ni mu ko waxee yeneen candidat la candidature yépp loolu c'est extrêmement important ñu fàttali ko comme ni nga waxee Birame Souleye Diop donc loolu dafa am solo ñu xam ko beneen bi mooy Bassirou Diomaye fay yëgul ne moom nañ wax ne demal nga lijjanti parrainage citoyen maanaam le 19 novembre ñeenti candidat yi nga xam ne président Ousmane Sonko moo leen waxoon dem jël fiche de parrainage ñoom ñoo déggoo seen biir ginnaaw bi ci waxtaanee président Ousmane Sonko moom mu d'accord ci jox leen ci ndigal jox ci ndigal parti bi. ne Bassirou Diomaye Faye nañuy lijjantil parrainage citoyen kon ñaari décision yooyu du Bassirou Diomaye Faye moo ko jël waxul ne moom mooy nekk candidat waxul ne man la Pastef di defal parrainage citoyen kon Bassirou Diomaye Faye benn candidat la am mooy Ousmane Sonko kon Bassirou Diomaye Faye buy bokk ci élection présidentielle yu ñu jëm c'est parce que président Ousmane Sonko moo ko wax léegi nag su boobaa daf ñuy permettre ñu dugg ci candidature président Ousmane Sonko parce que Diomaye de ñun dëkk bu yebalee si ñun li muy wax liggéey leen ci opinion bi waxtaan leen nit ñi engagé la bataille judiciaire lijjanti leen la bataille médiatique bind leen ci réseaux sociaux yi wan leen ñi ñi ne candidature Ousmane Sonko c'est toujours valable toujours ci loolu lay taxaw xalaatul ci boppam. ba tey jii nii mun naa am ñu jubilé de mais mun du jubilé te ñuy jubilé d'accord naa ci tax naa ñëw lan moo tax ñii ñu kontaan jëm ci fu ñu kon Bassirou Diomaye Faye candidat wu ba Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko nag su may ñëw ci candidature am damay wax ne c'est toujours valable ndax constitution Sénégal article vingt huit ak article vingt neuf moo wax ni pour nga nekk candidat ci élection présidentielle yan condition nga war a remplir le président Ousmane Sonko remplir na ko am na trente cinq ans au moins te amagul soixante quinze ans. il est exclusivement de nationalité sénégalaise maanaam sénégalais kese la amul benn nationalité le président Ousmane Sonko euh, sénégalais la boo xam ni il de tous ses droits civiques politiques bi ci tegu mooy mën na lire mën na bind langue française kon nag remplir na conditions yi nga xam ne moom la yoon bi moom la yoon wax pour nga nekk candidat il est toujours électeur parce que ay décision judiciaire yi am Ziguinchor ak Dakar mu ñaari tribunaux d'instance ñoo ne nañ ko réinscrire ci liste électorale yi beneen décision bu mujjee ñëw ci cour suprême décision boobu noonu ñenn ñi ngi werante ba xam mun na koo tere mu bokk ñenn ñi mun ko tere mu bokk waaye boo ko bëggee raje ci liste électorale da ngay engagé procédure te tant que notifié woo ko munoo ko raje ci liste électorale mais article l tout cas du code li tax may fàttali lii mooy kon avocat yi liggéey bi ñu war a def le mandataire du président Ousmane Sonko maître Ciré Clédor Ly liggéey bi mu war a def ci candidature bu président Ousmane Sonko mu koy def te da koy wëyal tant que nag conseil constitutionnel génnewul liste candidat yi de façon provisoire te mun na ko def diggante 12 13 14 janvier maanaam vendredi samedi dimanche avocat yi def seen réclamation te dinañ ko def tant que loolu amagul. ba ba mu génnee liste définitive yi bu leen nangu ñu génne leen président Ousmane Sonko ci jet électoral bi loolu laa bëgg ñu xam ko kon su boobaa ban question la ñu ngi di laaj mooy lan moo tax kon président Ousmane Sonko gëm ne moom toujours candidat la yéen waa Pastef ngeen gëm ne moom toujours candidat la ba pare ngeen yóbbu candidature Bassirou Diomaye Faye ba tey ñu koy valider à travers le parrainage loolu nag benn stratégie la. mooy la sécurisation de la participation électorale du PASTEF PASTEF dafa ne élection yi du ma rëcc parce que fàttaliku leen les quatre candidats à la candidature yu PASTEF bi ñu defee consensus ne Diomaye la ñuy dem utal parrainage citoyen lan lañ wax ci texte bi c'est un texte important dañ ne à la volonté du régime il faut opposer la volonté du peuple peuple bi moo ñu ne demal nañ dem ak ñii élection pour gagner leen ñun tam loolu lañ bindoon ci suñu charte président Ousmane Sonko moo ne ñun projet nañu yor te enjeu bi dëgg-dëgg mooy jëlee fi système bi pour soppi Sénégal te ñun ñooy nekk au pouvoir doxal suñu gis-gis te Ousmane Sonko du ci des ginnaaw te loolu fan ñu ñëw li ñëw di ngeen ci xam dara kon du lenn lu dul sécurisation suñu participation au cas où régime bi forcé na jalgati yoon te loolu mooy. nit am décision de justice nga ne ko du la jox fiche de parrainage nit ba pare ca jamono joo xam ne Mary Teuw Niane jox nga ko fiche de parrainage te nee bi mu ñëwee bañ koy vérifier ci parrainage bi nee moom nee nañ ko nee nañ ko yow nekkoo ci liste électorale yi Mouhamed Ben Diop biñ ko vérifier nee nañ ko nekkoo ci liste électorale yi te ñaar ñooñu ñëpp jotoon nañ fiche de parrainage ba pare décision judiciaire ñëw ne kii léegi dugal nañ ko ci liste yi kon yow bi nga basé woon dañ nga mu ñëw nga ne du ko jox attestation wu caisse des dépôts et consignation conseil constitutionnel bu defee leneen loo xamante ne moom la defoon te yàggu ko def muy depuis avril 1998 ci jurisprudence Insa Sangaré mooy day jalgati yoon loolu dafa war a am rek fekk ñun jam nañu paaka boo xam ne ñun après dañuy nekk ay ay personnes yoo xam ne dañuy toog di seetaan dootuñ amati benn njëriñ ci jeu électoral bi on a mille personnes à libérer qui sont en prison defuñu dara on a des centaines de personnes qui se sont exilées. On a un président à libérer, un secrétaire général à libérer, des maires comme Djamil Sane, Bilal à libérer. il faut que ñu ci élection kon loolu rek mooy stratégie boobu waaye tekkiwul ne candidature président Ousmane Sonko dañ ko enterré loolu mooy ñaari point yi moo waroon a njëkk a leeral léegi nag lan ma war a doon seen taxawaay bëgguma fi ñu jëm wala boog ñun waa Pastef bëgguñu fu ñu jëm ngeen toog rek di déglu conseil constitutionnel te liggéey bi ñu war a def balaa élection yi ñu ko def mais balaa muy jubal ci loolu damay adressé mes sincères remerciements parce que président Ousmane Sonko doon wax ne moom du remercier les membres du parti ndax ku ci nekk liggéey bi ngay def sa réew nga koy defal mais sa bopp nga koy defal parce si yow sa njaboot. mais ñun moom dañuy jël charge ñun mun nañu remercier wal bi suñu bopp suñu biir la commission de coordination du parrainage a fait un excellent travail te ki ko jiite di Fatima Meng c'est un exemple de patriotisme c'est un exemple d'engagement képp kuy jigéen nekk Pastef wala képp kuy jigéen Sénégal surtout nga nekk ndaw jëlal ci moom exemple ñépp a ngi yuuxu di ko tàccu ci parenage bi liggéey bi ci def liggéeyul ci parrainage kese dem leen page jot na ngeen xool nombre de familles des détenus politiques yi ñuy dem seet ak ñi nga xam ne ils sont victimes de la répression brutale du président Macky Sall moom mooy coordonné loolu yëpp tout ce qui est social avec les détenus ñëpp xam nañ liggéey bu extraordinaire bu ci def bërki dem muy woon Kër Massar avec l'honorable Guy Marius Sagna ak équipe bu GPS yi te muy li ñuy wax chemin de la libération yeneen frère parti bi di ci jàpp muy coordonnateur départementaux yi muy les membres du bureau politique ñi siy teew ay Abbas Fall El Malick Rama Bodian ñeneen ak ñeneen député yi Koulim Dioum muy aussi même les membres du cabinet du président Ousmane Sonko ñoom Ousseynou bi leen ci gis ñoom Ousmane Baro ñeneen ak ñeneen kon liggéey boobu mu ngi koy def sur le terrain pour bu ñu rompre le lien avec nos martyrs nos détenus en même temps muy def un travail technique et rigoureux sur le parrainage c'est le de lui rendre un vibrant hommage ba li ma gëm mooy kenn du bàyyi ba nit faatu nga koy rendre hommage da koy rendre hommage léegi nii te jàpp naa ne moment bi occasion la pour ñu jëm wax ko loolu remercier ni composé commission boobu yëpp lu mel ni SNIT nga xam ne gis ni ngeen leen keroog ñu def live di leeral fraude bi nga xam ne moom la état bi organisé au conseil constitutionnel dans la commission de contrôle du parrainage ñu ñam Jacques Diop bi ko jiite ñu ñam Laat ñëpp seen liggéey rafet na waa Sénégal ñoom Babacar Faye seen liggéey rafet na mais nag damay jagleel une mention particulière au personnel de saisie ñu doon saisir données yi tey ba ñu ak yeneen stratégie yi nga xam ne parti bi koy déroulé à travers ses mouvements ses coordinations départementales et ses sections communales li ci tegu nag mooy sécurisation du vote vote da fexe ba bu ñuy wàññi nga ëppalee mais da fexe ba bu ñu wàññee li nga am bu la ko kenn lor li nga am bu ko kenn foqati dinaa ñëw nag ci fan yii ñëw ci stratégie régime bi ci loolu te dinañ ko débusquer par par point par point te parce que tàmbali na ci liggéey bu yàgg loolu yàgg na Pastef c'est du sérieux Pastef c'est pas un conglomérat d'idiot Pastef c'est pas une bande d'inexpérimentés ou d'immatures comme beaucoup le pensent li ñuy def xam nañ ko bu baax te xam nañ naka dañ ko war a defee mais ci loolu ñi ñu war a représenter ci quinze mille vingt cinq bureaux de vote yi dañu soxla ay titulaires ak ay suppléants ñoo xam ne ñoo ñu fay teewal pour kuy dugg di voter ñu xam ne ba xam est-ce que yaa ngi ci liste électorale pour